fan yëpp ci coono la ñu nekk ndax tey kër lu mu rafet rafet rafet rafet rafet rafet jullit ñi war na ñoo xam ne fii mooy kër gu mujj fii mooy kër gu mujj lii nag ça fait des années ñu ngi ciy daw di ñaan pour ñu dimbali ñu ci ndox mii ndax xamoon nañu bis bi dina am ah boo ko ñuy defar miir bi sax tant que évacué wu ñu ndox mi mu génn dem ca ci ONAS bi maanaam ñu def raccordement bi ndox mi fi lay snacké bu ñu tabaxee it dina daanuwaat ah dara gënut a ñaaw nag nga suturaal sa nit ba pare ndox mi ñëw màbb bërëb ya yàq ko mën nañu sax am infection ci xale yi ndax xale yi dëmb fii kenn mënu fee jaar mi demoon na à hauteur kenn mënu fi jaar kër yëpp dafa inondé ah ñun nag amuñu lu dul ki nga xam ne kii moom la ñuy yëngatoo ci mbiru maanaam dañu ko bañ a bañ a mën a wax parce que ñi fi ñëw tey ci suba ay politiciens lañu am na lu ñu fi wax waaye ba léegi xëy na dañoo dafa jàppandeegul ak seegul man nak ba amé rek lañu ñu filmé Adama Diagne mo filmé andil ma filmé parce que man mënu mo guen sama dama xaw tawat mu ñew ne ma ah li kat mo am na ko président yëg léegi léegi ca saa si la ñu président jotuñu ko ñu wo présidente muy madame Ndiaye mii ñu jot ko après lañu jot Habib Habib sax mo ñu wol bopam malgré mu ngi won ci réunion mom mi mo ñu wol bopam ki nak def fi nek pour soqali Sénégal la wax ni mom la tuddé bopam politiqueul waye kuko jappalé it mu jël politiqueul andul ak kenn bopam lay liggéeyal luñu ñu ñun fi ci groupe bi mom mi mokay fecc li ñuy ñaan yalla dal ki wax nako nanu ne dafal ben tiwo bo xani bi dara dem rek deng mam ci canal ba su ko defé bu ndox mi dikété deng mam mëna dem lool rek lañu soxla ah ku ñu ci fajal suñu soxla ku ko yéene ak ku ko yéene wul yépp nak la nga bëgg ya ko xam yalla nako yalla yonent bi serigne touba defal ci daraaje yonent yalla muhammad sallallahu taala alaihi wasallam wa salam luñ fi def rek yalla yi kessé motax ñu def ko donc ci tank yi nga dox ni nak tànk yu sell la yow wax naa la ko ah donc ñun loolu rek moo ñu ñor tey am na ñu dëkk ci quartier bi ñoo xam mun nañ ko defar très sincèrement am na ñu fi dëkk ñoo xam ni yàlla jox na leen wërsëg woo xam ni buñ leen ko waxee tey ñu taxaw def ko mais lii sens la peut-être sa mérite la mhm. yàlla moo la bëgg a bindal tiyaaba mais nag ñu ngi lay sant mais ñu ngi sant aussi kii voilà ça soit clair sa jëf ji nak yalla nako yalla gis ba li ngay bëgg aussi bon yalla nako yalla ni yombalal ni mu gëna ci yow ngi nuyu d'abord euh, euh, wa medina fall yeb di len massaw mhm. euh, di sante seigne ibrahima ak soxna ma awa man limay wax rek moy du politique moñu bolé dëkk moñu bolé mhm. man bi mu yëg affaire bi tay la ko yëg mhm. tay bi mu yëgé amoon naa réunion de coordination noonu laa daggee sama réunion ma na leen man. yëpp lu laal Thiès ñor na ma. maa ngi nii te Thiès Dakar laa jóge nii. eggaguma sama kër sax. bi may ñëw laam woo gars yi ma ne leen ni nga foo nekk dagale ni ngeen def yëpp même bu di añ da ngeen bàyyi seen añ. ngeen ñëw añ sax jaaruma si. ma ne parce que lii aussi euh, lii metti na. parce que ñun ñëpp comme ni ko sëñ bi waxee rek fi nañuy mujjee. lii rek mooy kër. loo fi am alal lu lu jeex fii ngay mujjee.

oto waroon na fekk sax bu mu ko teeloon yëg man sa bopp sax naroon naa fi indi am naay xarit xam ne parce que ñu bari fa man ingénieur la mhm. ñu bëri maa leen si wàllu BTP ak wàllu assainissement mhm. mënoon naa fi indi ay camion latérite ma nag bi ma kii waxee

bugg seen bopp bugg seen gox war si dëkk seen bopp man mii mun man dëkkuma Medina Fall mm-hmm. maa ngi dëkk Jaxaar mais Medina Fall laa dëkk parce que lu tax mm-hmm. am naa fi ay am di jàmm fii sama kër la donc man mel na ni ko comme man tey lii dal fi tey mm-hmm. dafa mel ni comme comme quoi que lii man si fii laa dëkk nii loolu moo tax d'abord ma ñëw masawu leen d'abord indi leen sama contribution si wàllu miir bi. mais bu soobee yàlla. am nañ yéen nag. yéen bi mooy lan dañu bëgg jël mairie de la zone nord. parce que boo xoolee fii ngeen dëkk nii ñun assainissement lañ def def nañu route def nañu investissement. mooy yéen da ngeen nekk si benn bafon. mooy lan même ndox ONAS bi ngis nii ay ndox foos moo fay dem. ñun am nañu ay pexe yu xam ne. dinañ ko def ay regard yo xamna ndox bi au pluviale bi ci bopam feneen la koy sotti mais du dugg si ndox onance parce que ndox onance bi. amna station bi d'expiration mu ne Kër seyem doy man seen bop sax bokk na ci ñu ci liggéey. station bi en 2004 nekkoon naa fi commission de projet fi xamna station bu baaxa baax donc pour vous dire rek li du problème état du problème mairie li dogal bu am la ñun nak am nañ ci yéene buñu yalla défé inshallah allah rabbi li nga xamné ne mom lañu bëgg a dañu am ay pexé yu ñuy def étude bi def nañ ko man bi may def sama soutenance sama thèse medina fa bi la jël parce que li may wax moy medina fa moy Thiès fi la jël duguna ci ñaat ñaar téeméeri kër yu xamné ne def na enquête xol ni ñu dundé ak seen doxalin parce que assainissement mom moy santé moom mooy kër wërgu yaram moom mooy yëpp. moo tax tey vraiment ñëw di leen masoon rek. di leen euh, mas jox ni ko maa ngi seen ginnaaw. moo tax tey bi may ñëw imam. dama indaale benn enveloppe boo xam ne. njóogu mun naa wax ñaari tonnes ciment rek laa indi. jàppale leen si liggéey bi incha allah yëpp li ñuy defati rek naa ko yëg di sant bu baax a baax sama jigéen ñi aw ak son mari vraiment mhm. ak sama jigéen ñi nekk fi yëpp macha allah ngir Habib Niang mhm. moo tax tey ma ñëw tey uniquement tey indi leen sama contribution rek si wàllu miir bi xam am na incha allah rabi dinañ si gën a jàpp baax a baax